وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمان ونسخ الأمة وكشف به الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mbokk jullit yi ginnaaw bañ sante borom bi subhaanahu wa taala ñu koy sant ngir ne moom dafa yoo ñu koy sant ñu koy dimbandikoo ñu koy jéggalu suñu ay bakkaar di ko ñaan moom borom bi subhaanahu mu musal ñu ay bakkan ak suñu ay ñaawteef jëf moom borom bi subhaanahu wa taala képp koo xam ne jubal na la moo tag ci yoonu mbaax ci yoonu jub kenn mënut laa réeral waaye képp koo xam ne moom borom bi subhaanahu na la ci maandu teem kenn mënut laa jubal ngi seede na amul ku ñuy jaamu ci dëgg koo xam ne jaamu guñ koy jaamu njëriñ la ci aduna ak ci àllaaxira ñàkk kaa jaamu du lor ci aduna ak ci àllaaxira kooku du kenn ku dul nga xam ne moo ñu te sàkkewuñu ngir lenn ngir kenn ludul ñu jaamu ko ci kaw suuf misaalin muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente yàlla la bu mujj ci mboolem yonente yi muy koo xamante ni yonente dootul ñëw ci ginnaawam di woote ak yonente ñu la koy dëggal wala ñu lay gëm bu loolu weesoo rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ci مناني واح دوغن تي واحي واح دوغن دوغو تي واحي من تير برامي سبحانه وتعالى تي رواية من واح جل سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يبلو يس تي بي لوغن بن تي مريني جامو يالا لتي بن يس moy li nga xamanteni ñu ko sos sos nañ ko ci ginaaw yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam ديكو جامو برام يونتي بي صلى الله عليه وسلم نان ليب لوني سوس ديكو جامو يالا سبحانه وتعالى لول دي بدا على مونتي بيب بدا رير لا مونتي بيب رير سفر لي جيمي ني باي توب بوك جيتي بولا لاسو ñu ngi dalal ñëpp suñu dars bi nga xam ne daan nañ ko am fii suñu dars bi nga xam ne ñu ngi doon jàngat suñu benn téere mooy doon wax téere mi tudd atijaniya mooy dirasatan li ahami al aqaidi tijaniya ala da'i al kitab wa sunna ñuy jàngat pas-pasu lenn ci pasosu tijaan yi mais ñu koy jàng nag di ko nit ci alquran ak ci sunna leer na mu ngi leer de naam yaaxi ñu ngi dégg bu baax faddal ñu koy jàng nag ci ci jàngat ñu koy nit ci alquran ak ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbali woon nañ téere bi nag ba am ci ay bunt yu bari te nag ñu ñëw ci bunt bii mooy aqidatuhum fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mooy tijaani ban pas-pas lañ yor ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan mooy seen pas-pas ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pas-pas ahlus sunna wal jamaa mooy pas-pas bu ñu yor ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ku yàlla yónni la ci xeet bi diine ji mu motal diine ji jugewu fi lu dul diine gi daa mot ba datam jotee ajalam jotee yonente bi dem wuy ji mu bàyyi fi diine bu mot waaye ñoom nag yow dañuy pas-pas boo bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañu jàpp ne yonente mu ngi fii di doxantu si ñun di taxawaalu fii di dem ci gàmmu yi di dem ci wajife yi di taxawaalu xam naa moom yonte moom du génn Sénégal mu ngi par partout suñu koñ yeeg suñu fa taxawaal ñoom par force bii lañ yor ci yonente bi sallallahu alayhi loolu nag dina leer bismillah ñu ngi leen di dalal nag ci darsu baax tey bi nee na yaakaar naa eh, waxtaan bi moom amoon na sax benn live san boo xam ne ñu ngi doon waxtaanee lu mel ni sànq mooy gis yonente bi sallallahu alayhi بام جيني ادنا من اولا ايمانهم برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم يقظه بعد موته من لي سي نيك سين باسباس يونتي من اولا سين غم غو خا نني ايمانهم سين كي غيس يونتي صلى الله عليه وسلم يقظه موي جهرن فك بعد موتي جنا بوم جيني ادنا manam dañ jàpp na ñoom dañuy gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëhran fekk nekkul nelaw nekkul gëmmunt nekkul dara ginnaaw nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wuy dina deena suul nañ ko waaye ñoom dañoo fas ne yonente boobu ñoom dañ koy gis fii ci aduna dafa bokk te daanaka loolu moom boo koy wax ci tarixa loolu lii moom bunt bi moom boo ko dajjee rek mooy tarixa tijaan dajjee boo ko saxalee rek nga saxal tarixa maanaam tarixa tijaan lu muy rëy yëpp muy mag yëpp ci bunt ci la taxaw xam nga lii taxawul kon mu lay leen na kon tarixa tijaan dara taxawu ci tarixa tijaan ci lii la taxaw mooy gis yonent bi ginnaaw ba mu génnee àdduna te lii nag amul lenn ci alquran ak sunna kon di nga gis ne kon tarixa tijaan amul lu koy saxal ci alquran ak sunna tayib motax borom borom xam xam bi borom téré bi waji bilité dafa né nana taqum hadhihi tariqa ala idda'i رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم يقظه بعد موته في الدنيا والاخذ منه مباشره اذ كل كل ما كل ما قالوه من افكار وما ذكروه من اوراد زعموا أن الشيخ قد أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام برغم تقوم هذه التاريخ من التاريخ بي مونترو مونتاحو نونكتر كي ووتو ني احمد تيجان موم دافو ووتو ني غيس ني صلى الله عليه وسلم بنا بوم جيني بنا با خامني رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم يقظه جهره ba da mawti ginnaaw ba mu génn aduna fi dunya ci aduna waxu ci génn de mais tarixa bi ci lii la taxaw ci lii la tagu gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëhratan ci aduna ba noppi moom Ahmad Tijaan wul wal axdu mu wal axdu min mubashara waaw moom moom moom dégg nga sëriñ bi seen sëriñ bi mu wax de Ahmad Tijaan maanaam moom sëriñam mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam et puis moom bi moo koy jàngal nekkul moom mooy fekk yonent bi mais moom yonent mooy dépendance fekk ko fu mu nekk di ko jàngal fi tey daanaka waay ah, waaw mun is kullu ma qaalu mu ne lépp li wax nañ ci tarixa bi muy ab min afkaarin muy xalaatam science buñ mun ci wax ci tarixa bi rek lépp luñ ci mun ci wax wa ma zakaruhu min awraad yi loo xam ne أن شيخهم سنسن لأحمد جان قد أخذها من كجري من نبي تيرتي صلى الله عليه وسلم يقظة تلولنا جهرا لأم نقول نوري من لا من عم نقول شي نلو أها لول لول دو نلو من قال لي من ينتمي صلى الله عليه وسلم وقنه أنت من الآمنين أحمد جان تيو suñu suñu jox confiance nga bokk suñu wóoral suñu ñu garanti nga bokk wa man ra'aaka képp ku la gis minal aminin bokk na suñuy garanti mu ne nag in maata sart in maata mu dee alal imaan ci ngëm yow ku wóolu nga ku bokk na suñuy garanti ñu wóolu la seen moy ñu daal di dé ci ngëm yàlla mu ne moom yonent yi moo ko wax ni nee na loolu ba nga ko koy wax jeexal la tamit yëg dil mooy borom téere bi di rimah mooy sunu maam jooju alaaj umar tamar fuut yi dafa wax ci rimaaxam boobu waxoon naa rimaaxam yi mooy rimaax xibu rahim ala nuxuur xibu rajim Ya naa bu defoon acte téere bi bu bu bindoon bu waxoon rimaax حزب الرجيم على نور حزب الرحيم ولا نجنا جيب فكتير مهم شيء نستعيد عن غيره ما عمر فني دفع واحد كتير بيدي ريما من ولا يكمل العبد في مقام العرفان حتى يصير يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومشابهة من نكي من لا يكمل عبد من الجام بدمت في مقام الإرفان كي كي فلاس الإرفان ci mu nekk aarif dafa yegg de du mot ci yegg foofu mun a xatta yasiire xatta yasiire bi rasulillahi salaatu mun lulul dafa dem ba yegg di daje yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqazatan ci jahratan wa mushafatan muy muy jonjonte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyonte moom mun ku yeggul fii ne yeggoo ci yeggoo ci martabay aarif sa tiim déggoo déggoo sunu maam yi tiim wax El Hadj lu wax ci téeréem bi waaw mooy jaam ci place su nekk aarif lu dul ne dafa yegg di saafante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis di saafante moom comme may ni may gisee ku fi nekk may romb ni man ni may gisee ku dund ku deewul demul fenn tukkiwul ni ko gisee noonu ngay noonu ngay gisee dëgg bi sallallahu ku yegg dëgg-dëgg bii daraja ngay am. xabiir mu ne wa yestadilluuna tijaaniyun mooy tijaan ñu ngi daliloo lii ala imkaani ru'yati nabi sallallahu alayhi wa sallam ci nekk ci ne ci ñuy saxal ne yonent gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mun a nekk la yaqazatan baada mawti ginnaaw bu mu génne aduna fi dunya ci aduna ñu ngi koy ñu ngi koy daliloo de bi li nga ne Buxaari moo ko ومسلم المسلم دغري بو دغري بوخار واخنا مسلم رك لا جاهل نا ني دم سي بوخار ني مسلم بارو وابو داوود ابو داوود سلام ان ابو هريره ني دغري كو ابو هريره رضي الله عنه قال من ابو هريره ان سميت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دغنا يونس صلى الله عليه وسلم دوحنان من رآني في المنام فسيراني في اليقظة من ينتمي صلى الله عليه وسلم يعني képp koo xam ne mm-hmm. gis nga ma fa sayaraani di ma gis fi yàqala ci lu dul nelaw fekk yaa ngi yow dégg leen xadis bi waa xadis bi mbokk jullit yi ana lan moo fi tekkale gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu ne man fa sayaraani di ma gisi fiim sax moo fa sayaraani di ma gisi fi yàqala fekk yaa ngi yeewu أنا أنا لم أدخل بعد بعد موتي جينا أبو جينا أبو الله أكبر وهم نارين إذا سيو أسي مستوى سامي إللي حديث إللي وبيون النبي صلى الله عليه وسلم بدعينهم بل صح دل لول ده كوي رب يا كلام مر بس يونت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمثل الشيطان به فاستمان سيدنا بول ما دور دور الله أنا يقول لول ده فين خمين النبي صلى الله عليه وسلم fan la ñu xamee yonent sax ci gàmmu yi sax si rek xanaa ci gàmmu lañ ko xamee wala ci daayira yeeg ci caaxaan mooy gàmmu yi moom lekk kaay lekk kaay xaalis rek mooy gàmmu yi gàmmu daaw bi a neex ci la jigéen ñi gën a ci a ñu caaxaan yulul yulul jeex ah karaw yéen ci ñu la mel bañ leen ci ñu mel ay kàcc kese ku la dàq naa ko kàcc waaw kon xadis bi ñëw na ñu ne kon ñu sukkandiku ci xadis ñu ne qaalu fal xadis sarihun fi ru'yati nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqazatan baada mawti ñu kon xadis comme que nii lay tegtale wane ku ma gënt gis ma di ma gis kon seytaan du mu dund kon ñu ne bi qaalu ñu ne fal xadis sarihun yusiru yatimma bi sallallahu alayhi wa sallam yaqazatan baada mawtihi fi dunya ñu kon xadis bi kon dalil bu leer la ci gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba mu génne àdduna xanaa lii tam ñu ñoo ko coox est-ce que lii dafa am ci xadis bi lii kay sikk sàkk amul ci xadis bi saa sam ne ko woon gén bi ma di ma gisi di la ci àdduna la wala ci àllaaxira la di ma rek yéen nga jël ne kon génnul rek bàyyi yeneen xadis yi nga xam day wax ci leneen da daal di jël baat bi rek lii rek intéressé rek ñu war a di ko tegtaloo allahu akbar lii mooy wax lii mooy ñàkk ngi ah. man dafa mel ni dégguloon ma de wala ñu ngi lay ñu ngi lay dégg léegi borom di niqaash dalil lii mooy seen dalil di ko ni paas borom téere mu ne an al xadis ala hadihi ruya laysa nassan sarixan fi ruyati nabi yaqazatan bacda mawtihi fi dunya كما يزعم التيجانيون بل الحديث محتمل ولذا اختلف العلماء في معناه برمتي للنقاش وادي من أن الحديث من الحديث بيلي على هذه الرؤية تبيس النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت تكتور تبيس من ليس نصا صريح من ليد نص بلير بوي وانا لم يبيس النبي صلى الله عليه وسلم ليس نصا صريحا بنص بلير تكسي بلير تكسي بلير محمد صريح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعقد أن تبيس النبي صلى الله عليه وسلم بناء من جميع أدوية من دير ليدو ليدو تكسي بلير ليدو دليل بو bu ko tekkale koy waxee ñoom tijaani mun a bal lu am ba kay mun a balil xadis lu am ba jeex mun a la xadis dafa la jox am lu ñu naan ixtimaal ixtimaal lan mooy da gis lii day mën nga ci dégg lii mën nga ci dégg leneen comme xadis dafa ne ding ma gis gis gi lan la ndax aduna la wala àllaaxira la wala ñi nga xam ne bu nekk ci àdduna ndax ñi mu doon dundal moo tax muy wax lan moo ko ciy tegtale kon xadis muxtamite comme que xadis bu am ihtimal dafay tegtale nii di tegtale leen kon nag moo tax ixtalafa al ulama fi maanaahu moo tax borom xam-xam yi daal di wuute ci maana maana xadis bi tayib moo tax ñu daal di wuute من ان رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ومخاطبته باطل من وجهين د من جس يونس صلى الله عليه وسلم في ادنا دي واحد من من لولو دي شاحان لا نيل ورد دي نياري انا تناري تناري انا تناري وجه مولا ليران لي دي امو ورد دي نياري دي من بيبس جيك من انه مستحيل شرعا mooy loolu de mën a nekk ci charia boo ko tegee ci charia indi ko teg ko ci ci dalil alquran ak sunna mun loolu mun mënut nekk mun annahu mustahilun shar'an mun loolu mun nekk ci ci charia mu ne li anna nabi saasam qad maat mu ne yéen saasam moom deena génn na àdduna faddiaw xayaatuhu baada mawtihi mu ne wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dekki na dund na ginnaaw ba mu dee qabla yawm alqiyam lu jiitu yawm alqiyam mu ne loolu day yes yalzimu muxaalafata li qawlihi taala mu ne loolu dafay waral loolu day wuuteeg Alqur'an parce que yàlla subhaanahu wa taala nee ci Alqur'an ne yéen saa sam innaka mayyitun wa innahum mayyitun mais saa sam yow dee nga ça veut dire kon dee kon lépp loo xam ne day ñëw rek ñoo noo saa sam da ngay dee wa innahum yow ma fiyaam nga di dee من لي ولا دون على ذلك كدين أن الأنبياء ينتهي أحياء يدل في قبور سيد بامل وكذلك الشهداء دقنوا الأنقل مو شهداء نسهيد دانو كتير تولو حري من تميت من يدل سيني أي بامل قم ذلك بل أحياء إن ربهم قم قيال الله القرآن من ولا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولا ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم انه مولوتي مدقن توك اغواح دي النبي صلى ترد عليه روحهم ترد زين كو دلو روحهم حتى يرد يرد السلام على من سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم مو سي بير قبرام كيب كو خامل لي نكو لا دولي سي موم يالا بروم سبحانه وتعالى دي نكو دلو وار روحهم مو دالي كوي مو دالي كوي فاي على من سلم عليه كيب كو خامل لي نكو من فإن تلك الحياة من خمالنا دلو غوغلي برزخية من دلو برساخلة من برزاقلة من دلو غوغلي تختلف عن هذه الحياة من دفو موتك دلوك النبي من ولذا يقتصر في شأنها على ما ورد في مسلم وتخلي دلو غوغو دلو برساق بيتي تقرأ ci li nga xam ne ñëw na ci musus lépp loo xam ne dalil wax ko alquran wax ko ci ci wàllu dundu bar bar sax mënoo ci xuus moo tax daal da ngay rek daal di gàttañu ci lu lay alquran di wax ak sunna di wax munoo munoo expliquer tegtal mooy dundu bar sax parce que loolu mbiru rëy la yàlla rek moo xam moo tax yàlla moo rek moo indi xabaar wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina noonu kon ci wàllu charia rek loolu day dàq ñu saa sam kenn mënu ko fee kenn mënu ko ñaareel bi annahu mustahil mooy loolu tamit lu mënul nekk c'est impossible aqlan ci wàllu xel rek ñun saa soxna ñëw na fii di wax ñun mooy loolu boo ko tegee ci xel rek mënul nekk xam nga dalil moom dàq na ko alquran sunna am mun waaye boo ko tegoon rek ci xel loolu mënut a nekk benn borom xam buñu naan Qurtubi wax na imam Qurtubi nee na mun wa hada al qawl والوحي يدرك فساده ببدع ببدع الأقول إذ يلزم عليه ألا يراه أحد إلا على صورته التي ماتت عليه مات عليها سبحان الله وألا يراه رأيا رأيان في آن واحد في مكانين وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطبه ويلزم منه أن يخلق قبره الشريف من جسد الشريف فلا يبقى في قبره منه شيء ويزار مجرد, مجرد القبر ويسلم على الغائب لأنه جاز في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبله وهذا وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أذنب طيب من لي لي de day lii de impossible شي خرج وقت ديال الشهاده مونا باسكو امام قرطبي هنا من هذا القول من واحد جيلي يدرك فساده ببدء الدخول من نيغي خام بونام شي تامبل ما هو رك خل تامبل خل رك دا خام ني لو فاسول لو فاسول مونا باسكو اذ يلزم باسكو مونا تي لي واخ يونت غيسي نتا سان اذ يلزم عليه الا يراه احد الا على صورته التي مات عليها باسكو نيت بو نا داني غيسي نتي صلى الله عليه وسلم foog nga gis ko ci melokaan bu meloon ci suwaram ci melokaanam ci jëmmam parce que parce que boo xam ne boo ko jënte boo nga jënd ko ci nu meloon ci sifaatam te boo ñu gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fii ci aduna kon ci loo koy gis ci melokaan bu meloon wa an laa yaraahu ra'yan fi aali waahidi te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy dund nit mënu ko woon gis ci ñaari place ñaar yi ñaar mënuñu ko woon gisandoo maanaam ki mu ngi ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba muy dund bu nekkoon ci jàkka ji bu nekkoon ci jàkka ji boo demoon ci këram doo ko fekk walla yonent bi sallallahu alayhi bu nekkee këram boo nekk boo demee ci jàkka doo ko fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu tukki woon boo demee Madina doo ko fekk dégg ngeen wax ci kon lii rek ci xel rek day wane ne mënu nekk parce que yonent bi sallallahu alayhi ba muy dund nit bu ko gis ci ñaari place bal kon ñi naan dañuy gis yonent bi salaatu ñaata place lañ ko fiy si ñaata place lañ ko fiy gis waaw ah, ah. waaw kon ñoom Fatick dañ koy koñ dafay ñëw waa Algérie lañ koy gis waa Maroc lañ koy si ñaata place lañ koy gis mu ne yaraahu raiyaan fi aani waxid fi makaanin mu wa an yahya al mu ne tamit mu de mu daal moo reexeel aan wa yaxruju mu daal di kon mu daal di parce que kon buy ñëwaat kon day dekki kon bu ñëwee yonent bi ñëwaat kon day dekki waa reexeel aan wa yaxruju min qabrihi mu daal di génn ci bàmmeelam wa yamshi mu daal di dox fil aswaq ci ci marché yi wa yuxaatib wu ñu wax ak moom wa yalzam minhu an yaxru qabru sharif kon loolu day wane ko yéen saa sam léeg-léegi mooy mooy qabro mi an yaxru qabru sharif min jasadi min jasadi sarif kon manam day day am yenn saa yoo xam ne yonent bi ak moo xabroom bi dañuy tàqalikoo day génn ci xabroom bi yaramam bi day génn ci xabroom kon fala yabqa fi qabri min shay'un day day am ci ay mama yoo xam ne kenn du nekk ci xabroom kon ñi ñi nga xam ne jóge nañ bi lam di ziare yonent bi ñoom kan la ñuy ziare parce que boo nee yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxtu bi nga xam ne ñu ñu toog fii di wàññi fa wala di xara yonent sallallahu alayhi wasallam dafiy ñëw léegi fi mu nga xam ne dem na fee di ziare yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala Fatou Diagne bu ñu ko dem ziare kooku kan la fay fekk xanaa doo mën a yónni dafay soppaleeku de ay nekk ay nit ñu bëri de film yooyu tam c'est que sax amul yoon saa sàmm muy dund moom moom moom bu nekkoon Madina doo ko fekk ba mu ajee Madina doo ko ah bu ci biir kërëm rek boo ci jàkk ji doo ko ci jàkk ji boo demee kërëm bu itikaafu nekk ci fan yooyu dafa nekk di nekk ci kër waaye yéen kon boo <laughs> bu ñuy indi yenn saa yenn saa doo kon lii mooy lii rek rek xel xel xel kon ku a ziar xabul kese xabul bu kon nag kooku bu ñëwee foofu nuyu yonent bi sallam way sa way way sallim alal ghaib kon kooku dafay dafay nuyu koo xam ne nekk fi li anna kon ne jaaza fi leyli wa nahaar ma itisaali awqaati ala xaqi kon guddi ak bëccëg kon dina daga ne sax di ak bëccëg ala xaqi maanaam euh, yaramam di déplacé di dem di doxantu rek di rëy xabri yi ci loolu mu nekk ci xabro mu ne wa haadihi yii de jahalaat yii ay réer la lii la imam Qurtubi wax ci moom du waxaa bi xanaa ci moom lu mu mayee Abdul Wahab moom kenn xamul ñaata fas imam Qurtubi mu wax li de Maliki bi mu ne laa yaltanimu biha man lahu adna maska yégal man lahu yégal mas min al aq mu lii du wax koo xam ne am ku xelam feebul sax worul muna worul muna jarul yi maskatu min al-aql koo xam ne man la war adna maskatu min al-aql koo xam ne xelam faible na lool lool lool warul mën a gëm lii kon da ngay xam ne kon nit ñi dañoo yàq seen fitre yi nit ñi dañoo jaxal seen bopp yi mais dëgg-dëgg lii ku am xel mënoo ko mun jël maanaam wax ji moo bëri rek ba nit ñi commencé jaxasoo di ko commencé di gëm mais lii xel moo ko am wallahu reseetlu wu seetlu ñu nekk ci ci bidaa ñun ci wàllu commerce ay nit lañ wàllu xaalis mënoo leen mënoo leen a nax ah wut soxna ñoo la dàq labat pour am soxna ah wàllu jënd oto mën nañu waxaal jënd xar ñii ñu bu eggee ci diine rek ay dof lañ dootuñu wërët dootuñu musat ñu rek subhanallah ñu beneen côté bi ay nit lañ rek ñu naa ay dof bu ñu jëmee ci diine rek ilaa nekk ay dof dootuñ mën a nekk dootuñ am xel dootuñ niteeti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun seetlu ngeen seetlu ngeen li may wax ni ak ak yi ñoo la dàq waxaale ñoo la dàq lijjin ci xaalis ñoo la dàq tabax aduna dañ ci gis ay ingénieur ñoo xam ne xel ay scientifique mais bu ñu yeggee ci wàllu diine rek ay dof la ñu nekk dootuñ wërati xam nga nii ku ko mën a dugal ci bopp nit ba mu ba mu mën faa sax mais kooku dof la آه. برغم من ترى من أنه على فرض صحة هذا الاحتمال لا يليق بعالم بل بل هو غيره أن يصرف هذا الدليل إلى هذا الاحتمال لأن من القواعد من القواعد الأصولية أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال فكيف إذا كان هذا الاحتمال ينقضه نفسه الحديث ويرده الشرع والأرض بنتهي مني أنه على فرض صحة هذا الاحتمال من بني الحديث ده ورنا أما حديث مو ورنا يعني البخاري المسلم طيب هم احتمال من بني ورنا صح بني بني صح ورنا من لا يليق بعالم من يلو كبران خم خم bal xayruhu bal hu xayruhu même ku borom xam-xam sax muy jël dalil bii di ko tegtaloo ci bi sallallahu alayhi wa sallam mun xaaral ijtimaa mu ne borom xam-xam waru koo tegtaloo ci ci ci werante mu ne bàyyil sax même ku borom xam-xam sax amoo du waayo fekk mbir moo xam ne ñu naan lii mun na tegtali lii mun na tegtali nga ñëw rek lii rek lay tegtali xam nga loolu. loolu loolu loolu loolu ànd la xel ànd la xel mooy ay yasrifa haada dalil muy mu wëlbati dalil bi ila haada ila haada ihtimal mu jëmale ko ci ihtimal ba de waaw fekk di wax fii lii di wax fii maanaam benn saako nii boo jàppee côté bi côté bi day tuur boo jàppee côté bi pour nga boole ñaari côté yi téye yow nga ñëw rek téye benn côté ne am naa dalil léegi dafa lépp tuur lay def maanaam kon da ngay seetlu bi ñoom buñ jàppee ne am nañ dalil dekee luy saabu buñ buñ jël dafa tuuru غير ذلك الى هذا الى هذا الاحتمال لان من القواعد فكر بوكو القواعد الاصول من ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال بطل به الاستدلال من بوكو قواعد الاصول ما نام دبا امي بو نكي مساله دليل بو خامني احتمال لا كين مول سي تكتلو دي كوم سي الاصول قاعده اصول قاعده اصول ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال مانام دليل بو خامني دليل بو احتمال لا رك مونا تكل مونا تكلي مونا بطل الاستدلال كين مونتوكو استدلال كين مونتي سي تكتلو pour sa halal mën naa tekkale lii mën naa tekkale kon xaalis bi dafa ne ku ma gis ci dim ma gis waaw luy dali luy wane kon lii ci aduna la pourtant mën naa tegtale àlaxira de sax ci aduna waaye fekk am nañu ci jublu mooy ñan xam nga amoon nañu ne alxadramin mooy ñi xam ne ñu doon dund ak yonente bi sallallahu alayhi wa te gisuñu ko woon xam nga yoon saa sam nekkul ñu doon ñu doon ñëpp ko gis am na ñoo xam ne ci ay village lañ nekkoon ay ñenn rek doon yónni ñoo ñëw doon ñëw indi ay laaj di ko delloo xadis bi am nañu ko téye foofu nee na am ñenn ci ñooñu ñoo xam ne xadara bi ñu gis ñu ñooñu saa sam neen képp ku gis ma di gis am ñu yóbbu firi xadis ci ñooñu ñooñu moom ku ci gént gis ko rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee doo dee loolu di ngeen waaw boo jëlee istimaal bu mel nii nga daal di ko rek bu ko tegtaloo moo tax waa ñu بوكنا إيه شي قاعدة أصول قاعدة أصول أصولية أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال من الدليل بيب دليل نك بو خامن رك احتمال لا نكو نيت مونت تي تكتلو بور صحال دار تي ولا بور داك دار تي ار sama kayak haram tuh mana kasih ya tayib kon bépp dalil boo xam ne istimaal laa na ko rek mun a jëlam mu ne fa kayfa ida kaana hada al istimaal yanquduhu nafsul xadis mu ne naka nag muy tegtaloo sax istimaal boo xam ne sax day dàq li wax istimaal bi ci boppam xadis bi da rek nafsul xadis wa yadu shaq wal aq man li xam ne sharia da ko عقله نام ما حدش بيقدر تك لو صح they they they داخل يعني واحد لكن لما مذهب أهل السنة والجماعة كبيس يونتبي صلى الله عليه وسلم جناو بمجنة الله طيب مذهب أهل السنة والجماعة من مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا وحكم من قال إنه يرى نبي yàlla nabi sallallahu alayhi wa sallam baada mawtihi yaqulatan mu ne lan mooy demin position ahlu sunna wal jamaa ci bis yonente bi sallallahu wa sallam ginnaaw mu génne àdduna ak lan mooy atteem ki nga xam ne nee na gis na wa sallam ginnaaw mu génne àdduna yaa bismillah yéeg la yaa ma dégg yéen ma dégg tey borom téere bi nee na inna ru'yata nabi sallallahu wa hukman qaala innahu ya nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd musimune inna ru'ya nabi sallallahu alaihi wasallam fi manam magi sunu nabi sallallahu alaihi wasallam mune bu rek gi jeul sallallahu alaihi wasallam yeen sallallahu alaihi wasallam ci yeen mune haqqun lolu deug la yeen sallallahu alaihi wasallam ci jeul deug la lolu sax la gi sallallahu alaihi wasallam ci jeul moy li wurudul li wurudul ahadith صحيح بذلك غير رب وخمنا ربنا في أي حديث غير من ذلك مراه البخاري بقول لك رحمه البخاري صلى الله عليه وسلم بسند متصل أنا أبي سعيد الخدري سند أبو حمد جوك بجوك ولا بتي أبو سعيد الخدري أنا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم دقنا يوم ساتم يقول من من رآني فقد الحق كم جد جد جد فإن الشيطان من فصل الشيطان laa yata laa yata këw mun a sos seytaan lu mu nuru munul munul mel ni man xadis boobu nag wax ci mbir mi pourtant bii de ci moom xadis boobu la de maanaam dafa am riwaaya bu chaaz bu ñëwee côté we léegi ñun dañuy bàyyi riwaaya yële ci nii xoolal mbokk yi xoolal danger bi xoolal musiba de yooyu saa su ne képp koo xam ne gis nga ma ci gént mën nga gis parce que seytaan du ma mel mel du ma du ma nduur nduur munul jël sa munul jël sama melokaan seytaan munul jël melokaan ku nekk waaye ba mu des melokaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga de waaye lii nag day fekk nga xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu sirin ak ibnu abbas ak ibnu sirin ñoom ñaar képp ku ñëwoon ci yonent ku ñëwoon ci ñoom ne leen gént naa gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dala naan fiqhu lanaa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melal melal ñu ko noo koy melalee ci la gis nañ sax léegi am xam ne mos na si Ibn Abbas wax ne gis nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko melal mu wax nii la mel waa ñu digg doomu la mu ne ko yow même boo ko melal comme ni gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa su buñu xanaa su bële tamit bu ñu war a tegtal ni ko gis yonente bi salaa sallam ko def parce que ay saxaaba daan nañ génn di gis yonente bi salaa sallam amul kenn ku ñu ne man gis naa ko ku mel ni Anas Anas day wax ci benn xadis mu naan mu ne xale leen illa wa ana ara fii xalili mu ne amul benn guddi buy passé Anas ba mu wax lii mu ne amul benn guddi buy passé loolu man yonente man de man Anas maa ngi ciy gis sama xarit bi yonente bi sallallahu alayhi maa ngi koy gis dama ko ciy gis xoolal mu ne Anas Anas di wax lii rongañ buy wax le muy wax lii di ko nettali sax ñi mu dajeel mais mu koy wax rongañ mi di génne bati bati di génne rongañ te anas mus la wax man gis naa leen di kon xadis ba ne kon loolu muy tegtali tegtawul nag loolu war kenn mu ko see jëlee mu ne amma ru'yatu ru'yatuhu ba'da mawtihi fa madhabu ahli sunna wal jamaa annahu la la yura yaqalatan ومن ومن راى ما يوزن ذلك فانه من تلبيس من تلبيس الشيطان لعنه الله من مذهب اهل السنه والجماعه مو يوزن صلى الله عليه وسلم كان بوكو جيس جهرا منك صحابي يوزن يقول لك يو يقول صلوا ابو بكر عمر عمر صح دانو خنا اي لاجو خنا ورنا جزيره صلى الله عليه وسلم عمر مي ماغي ها صحابي راي دنا جينا يوزن صلى الله عليه وسلم اي درتو يري عثمان yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënoon naa génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci borom xam-xam yi da ngay gis ay ñoom Maalik ñoom Shaafi luñ ah, yi ñu muute da ngay gis sax ci muute Maalik ne lii ku ko def yéefar nga keene lii ko def ne ko yéefar sa julli yàqu lii ku ko sa muute yu toll moom ak kenn ku la naan yonent sallallahu sallam ñëw na ci man ne ma lii ak lii ak lii waaye yonent sallam bàyyi ba adduna bi yëpp jeex en en lu toll ni junni at ñëw rek ci benn waay naan ko yow minal aminin ah, man raaka minal aminin anta minal aminin wa raaka minal aminin ay waay ay waay ay waay ay waay ay waay nit nit nit nit nit nit nit nit yamul maanaam Sénégal Sénégal moom intelligent nag tayib hmm. mu ne mu ne yéen kaasam kenn du ko gis من ومرة ما يوهي مظاهر كيف كو خامي جسنا لو خامي لي لي لي لنتل نان دي نلوك موم ها آه؟ دي واخ لولو من فا انه من تلبيت الشيطان من خامل الشيطان اللي هو جمال الشيطان مولا بغا جمال بس كتيدان جمال كات لا بلن فاتي لولو ها آه، بس كتيدان بس حديث ما قولي حديث بي وقول ني الشيطان مولي نيوم نما يولي ما دفن مولي ما دور دور يوسف بلاني ما هو الشيطان يجي من من ما يولي xoolal ay sifaat ndax sifaat yonent bi sax parce que seytaan du du du du yonent saa yoo xamoo yonent bi saa sam mel yow suñ di foo ci gàmmu yeeg caxaw ay fenkat dafay nekk naan la karaw gi la mel ak wa sallam nekk ci yooyu def xam ne képp koo xam ne gis na loo xam ne da lay ci loolu xamal ne seytaana la bëgg a ok daan ngeen ko Abdul Qadir Jilani seytaane mos na ko mos na ko feeñu ne ko maay sa borom yow fàttaloo xam nga bu mënee wax loolu xam kon mënul ñàkkul mënul ñëw ne man maa yonent bi waaw loolu dafa bokk ci talbisu seytaane mun wala yata'atta alayhi hadis mun bul hadis waxul fa inna seytaan la yatamassalu bi bul bul tegtal rek ne hadis dafa ne seytaan mënu maa ngi loolu nga jàpp loolu mu ne fa inna seytaan kama axbara salatam la yatamassalu bii man seytaane ma ndurndurlu waxul mënul ñëw ci man ñama duma duma yonent mu ne laakin na seytaan yusbiru qarinahu bi xabarin kaadib parce que shaytan dafa am qarinam léegi leen ñu ci qarinam di wax ay xabaar yoo xam ay ay kadi mu waru yàlla nabi saa yàlla dara min baabil aqaayid parce que gis bu nekkon ñu saa sam dafa gis ko giraaw gennu aduna mu li lii parce que xam nga mbiru xëy bi dafa bokku ci buntu pas-pas من والعقيدة مبنية على التوحيد ما ما تأقيدة بلن فات العقيدة دفع يتبعه في نام توحيد ما نم دليل مقوارة تكالك بس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبيرو غيبه تبيرو دفع يبوك تبيرو خمنا فاس فاس تبيرو فاس فاس نت دفع يفخ دفع يتبعه شيء دفع يتبعه شيء آه دفع يتبعه شيء في توحيد ما القرآن والسنة wala yujzamu bi nafi shay'in aw isbaatuhu illa bi dalil parce que mbiru pas-pas munoo cee saxal dara wala ci ni ci dàq dara lu dul dalil moo ko tegtale illa bi dalil sahih sahih itam itimaadu alayhi lu dul dalil boo xam ne bu wër la pour ñu sukkandiku mooy te loolu dalil boobu nag wala mu yarit il kitaab doo ko fekk ci alquran muy tegtale dañuy gis yonent bi saa sàn bi daa moom dégg nga am wala fi sunna doo ko fekk ci sunna yaa yëkkatim Jibril bismillah yaa xanaa toog wàccal wàccal wàccal yéeg na yéeg la bëri wàccal wàccal wàccal tarib baax na loolu doo ko fekk ci alquran wala fi sunna doo ko sunna luy tekk leen sax ne day gis bu ngeen ma yadulla ala isbaati loo xam day tekk leen ñii ñuy saxal loolu gis yonent bi sallallahu alayhi سمك ولم يدعيها احد متكلم مسقى واتوا نتفحوا ينتهي صلاه ولم يدعي ولم يدعيها احد فيما نعلم من الصحابه من خمس ينتهي صلاه في صحابي كيف مسقى واتوا النبي صلى الله عليه وسلم بلا بد ان اعلم كل الصحابه اللي يبي مي مجي من خمس ينتهي صلاه تني عند الجيت يا صاحبي امول كنكم مسقى واحد من ينتهي صلاه يوم الجمعه محمد يعني motax amna ben boy bu len di fi senegal boy bu ndaw booy bu ndaw toog na ci ci biir ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na fii wax ak man lii ak lii ñoom ñëpp kenn ñu ko ku ko ñamee weddi ah yow da ngaa xam ne sa sëriñ gis na yonent bu ndaw moo leen di na ci man ñoom ñoom di waat nag naa ne di gën di def waaw fii la la toog nii wax man di waat booy boobu nag wax loolu ñun ñëpp xam nañu booy bi day fen mais ñoom booy bi day fen parce que seen sëriñ encore dañu wuti dañuy fen parce que woote gis parce que gis ngeen lii mooy lu danger ubbi bunt yi mel nii bu ñu xamoon danger bu nekk ci ubbi bunti gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu garaawee wala suñu doom day xëy na ma yéeg yi bàyyi la tamit indi ne man tamit yéen tamit nee na léegi a tàqalee suñu doom moo nekk ci dëgg wala suñu doom nekkul fen bu nekkee amuñu dëgg gis ngeen bi bunt bi ubbi bu bunt bu gën a garaaw yoo xam ne saddu zar yi dañu mën tëj mooy di woote wu di si yonent bi sallallahu alayhi gën a mën a jaxase a diine yàlla yi bunt boobu da moo tax bunt buñ waa tëj xoolal booy bu ndaw modifié Sénégalais yi ñoom Matar Sarr ñu ngi foofu dañu wax dañu boobu booy bu ndaw mu ngi di defi te xoolal ñoom ñëpp ñu ci ne teg noppi ci parce que seen sëriñ ñoo xëy booy booy bu ndaw rek am fit gis na ni rek bàyyi ma ci ma teel a xam ma a booy bu dee léegi bu dee nga gis ñu ko bindal fii téere saxalal ko ko na ko yàlla gindi waay xale boobu na ko yàlla delloo ci diine mu dem jàngi daa war a jàngi xale mhm. mu ne doo fekk lu koy ci sunna doo fekk lu koy saxal ci alquran ak sunna maa yadullu ala isbaatiha mu ne te kenn mosu ko wootee nag ci saxaaba yi wax naa ne saxaaba ak Fatima wuute nañu Abubakar ak Fatima wuute ci miraas yonente bi sallallahu alayhi wa fàttali nañ miiraas alal gi Abubakar ne yonent bi sallallahu wa sallam nee na ma bi de yonent bu deewee lépp lu mu bàyyi sarax la Fatima mer ci loolu yonent bi ba tey ñëwul àtte leen diggante wuute bu am diggante ansaar ak muhaajir kan mooy donni kan mooy kan mooy bi sallallahu wa sallam loolu tardel ñu rob yonent bi sallallahu wa sallam yonent saa sam tëdd ci néegu Aysa tëdd ñetti fan robuñu ko à cause de coow loolu ngeen yonent bi mën na ñëwaat ñu gis ko te ñëwaatul ay waay waay waay waay Sénégalais yi ana xëy ñu wër kër kër kër Ousmane bu ko rey ñu tali ñaari weer pour bu ko rey ñu ko wër ay julli lañ Ousmane mu ngi ci biir ak Ousmane nu mu mel fu mu toll ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais ça mu ne yàlla ak ay malaaka dañ koy rus yonent bi saa sa mën a ñëw ci àdduna pour wax ak nit ñi ñëwul ci ñooñu waaye yéen ay waay yéen yéen tamit mu aawiya ay ñoom ayse ay ñoom talxa ba ñu ba noonu ci kii ba ñu xurujee ci kii ci di sansam ak wuuteeg ngi mu grawee ñoom ñun di sansam ñu waatul bàyyi ci loolu ci bàkkaar boobu ajib saxaabi jàkkaarloo di xeex si fin jaar jamal jaar ay saxaaba di reyante ñu rey ay saxaaba inna lillahi inna ilayhi rajiun ay saxaaba mag ñu gën ci xeet bi di xeex deret di tuuru sallallahu alayhi wa sallam mën na ñëwaat wax ñoom ngeen yonent mën naa ñëwaat yonent bi toog bàyyi leen foofu ne leen rayante leen wuute leen xaaral ma ñëw seeti wa wa waa Sénégal maa ngi nii ay waay ta takkusaan mu ñoom mbokk yi subhanallah lii lu garaaw bunti bi numu danger bunti bi numu rado kenn mus ko wote ci sahaba yi wax na leen anas ah ah ولا من التابعين التابعين كان مصور ولا من اتبعهم ام التميت كنوس الجناس ينتصر من خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم ينتصر من يدن كي xanaa loolu ñii ko woote ñi lan la ñu woote ak baax moo tax ñu koy gis len saa sam ne ne ñu gën ci nit sama nitu siècle yi mais topp ci ñu ci topp su mën le diina yeluu topp ci ñu topp mu ne toppaat ci ñu si encore mooy trois ans trois ans noonu noonu ngeen koy waxee de mooy ñetti ñu ñu ñu koy dund baax ñoo gën cee ñooñu ñëpp ak nu ñuy baax amul kenn ku ci bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw moom génne am na waaye yéen ñu gis yonent إنا لله وإنا إليه راجعون سيرياني تو مو دوخني ها عجيب من فمن قال بان النبي صلى الله عليه وسلم يرى يقظة بعد موت فقد أتى بقول يدرك فصاد بأوائل الأصول mu ne képp ku ne yonent bi dinañ ko gis ginnaaw ba mu dee jahratan mu na nga xam ne indi nga wax joo xam ne mu ne waxam wax jooju de bon bu mu bon ñu ngi koy xamee ci awaayu ñu ko ci tàmbale xel rek wane ne wax jooju wax ju bon wax ju yées la أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم mbokk yi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla mooy dégg ak topp yàlla na yàlla dimbali أقول قولي هذا جزاكم الله خير يا إمام بلال السلام عليكم